id kun nafsin lamma lay xaafisun fal insaanu insaanu bi maa xuliqa xuli am ma in ba mu jeex gis nga lu aju ci wàllu néewi néewi néewi néewi xam nga léeg-léeg am na ñoo xam ne ngelaw bu la duggee da sol ba ci li nga xam ni dañ koy seetlu léeg-léeg nga amee côté ballonnement nga xam ne bu la dëkkalee ballonnement bu naturel nag léeg bu dëkkal la am na mu def ci yow mooy li nga xam ne mooy siyaatil insi yeeg yooyu daal maanaam seytaane yooyu daal léeg-léeg bu la roofoo da lay def am néewi néewi am na ñoo xam dañuy néewi rek ba léeg-léeg yi sax dañuy jàq waa yow qu'est-ce qui se passe parce que yow sa néer yi nangam ak nangam nga bind ko ndax alquran shifaun la nga bind bismillahi rahmaani rahim booy bind comme ni ñu koy bindee ci daara yi rek allahu kun bismillahi rahmaani rahim nga xam ne suñu baay bu baax bi baay njuga yal na yàlla yokk ay leeram daana wax ni sooy bind dara te bëgge barkeg suñu borom fatixa bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin rahmaani rahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim ndax suñu borom mooy jubal yaasin wal qur'anil hakim innaka ala siratin allahuma salli ala seydina muhammadil faatixi lima uliya wal lima sabaqa naasiril xaqi bil xaqi ila siraatikal nga doog a tàmbalee bind waaw baax na ci loolu avant nga bind nga ëf ca ko defee inna fatanna laka fatxan mubinan li yaxfira laka ma taqaddama min zanbika wa ma taaqara wa alayka wa yadika mustaqim nga doog tàmbali bind yii daal baax na yàlla na yàlla barkel